ba tey ci seen scandale du jour de ce lundi 29 janvier 2024 fii ci vie People kii di Mame Birame nag moom it def na révélation yoo xamante ne jëmale na ko ci politiciens yi mais ci précisément ci ki nga xam ne mooy président Macky Sall ndax nag coow li bëri woon na fii coowal troisième mandat ñee naan Ousmane Sonko kenn du ko jàpp yooyu yëpp yàlla na fi nañ dem seetaan vidéo bi ñëwaat. Euh, dama jàpp ne Sénégal. ñeent lañu xalaatoon ne moo fi war a mën a indi coow. ñeent. ñett yëpp weesu nañu maanaam bi jiitu mooy troisième mandat bi munoon na fee indi coow. jàpp Ousmane Sonko mënoon na indi coow. également ne Ousmane Sonko du bokk ci élection yi mënoon na indi coow. léegi nag président defoon ba muy def discours am le 4 juin boobu. dafa entre ouvrir maanaam tëjul bunt bi bu baax dafa ne woon mhm. nekkatul candidat am na ci droit mais suba Sénégal bu fi dara xewee. mun nañu xaar à ce mu ñëwaat. parce que waxoon na ne Sénégal moo ko sut le Sénégal est au-dessus de tout. waaw ma ngoog léegi su mu ñëwaat. la mu doon xaar noonu mooy quelque part waa Pastef yu wàcc ci mbedd mi di ñaxtu. Mhm. te occasion bi nga xamante ni waa Pastef waroon nañ koo am pour manifester. Mhm. déjà mooy am jàpp nañu Ousmane Sonko. yóbbu nañ ko commissariat bu mujj kooku yóbbu kaso. waa Pastef na teg na teg ñu ne candidature bi nga xamante ne nii ñoom jàppoon nañ ne même Ousmane Sonko su nekkee prison moom candidature moom quel que soit alpha. Mhm, dina ko nekk dina ko nekk. ñu gis ne ba ñu nee Ousmane Sonko candidature am c'est hypothéqué. Mhm. parce que yóbbu nañu euh, dossier bi fële ca euh, tribunal euh, de grande instance. nga xamante ne nii mun nañ ko juger sax ñoom bu leen soobee. Mhm. ca mois de janvier deux mille vingt quatre. ñu gis ne sénégalais yëngatuñu <laughs> mais seulement certainement Macky Sall il se dit que ne sama troisième mandat bi kon man dama koo teel a wax <laughs> puisque sénégalais yi <laughs> du ñu yëngatu su ma xalaatoon ne nii la ñuy def du ma ne troisième mandat du ma ko def. kon réaction wu sénégalais yi wala boog le manque de réaction des sénégalais daf ko surprendre. mais mais man dama jàpp ne ñoom seen calcul yëpp surtout président. rebondissement manam mu ñëwaat ci langue politique bi. Mhm. li ko waroon a mun moy sénégalais manifesté manifester. donc ñëwaatu ba occasion. maam Biram ñëwaatu Macky Sall ci langue gi ci wa Pastef le dépendre. ci waa Pastef la dépendre ci bu ñu manifester. waaw ah. te <laughs> manifestation bobu ñu ko doon xaar gannaaw ba ñu jàppee Ousmane Sonko ci. invalidation candidature am bu ko mëne wax non ah. lolu <laughs> ba mu xé gis nañ ko fi le 17 sénégalais c'était la première fois. Mhm. nga dégg. Euh, surtout à Pastef mhm. ñuy wajal benn bés. bés bobu sénégalais yi ñu gis ci pratiquement coin yépp ay policiers jour bobu danaka sen <laughs> dispositif yi ñu daan teg. kenn gisu ko absolument moo tax <laughs> est-ce que kon euh, mam Birame nañ def dank da nga bëgg wax né gaay le 17 bobu bi wa Pastef waxé né tay le cour suprême wara joxé euh, xawma lan verdict ci jugement wu.

passer vie ou bien occasion ne comme que dëkk bi dafa y am ay tout ça par exemple euh, non seulement d'acc élection mais même pourquoi pas mu parce que le président Maxal, même au-delà discours le 3 juin mhm. def na fi interview fële ca tugal ne nek candidat. manam mhm. Sénégal n'est ci. trouble période d'instabilité. mais période d'instabilité lan moko forum on indi mandat ba mu diapos oui <laughs> Ousmane Sonko Ousmane Sonko ak invalider sa candidature. invalider candidature am nak jour bañu ko xaré malheureusement sénégalais danaka ken loolu su ko président calculé. mais dina wëri ñan ñoo ko doon wax ne boo posé candidature dëkk bi tàkk ñi ko doon wax ne <laughs> comment dire bàyyil sa candidature bi soo bëggee buñ jàppee Sonko dara du am. kon yaakaar naa ñoo ko déggandoo ñetti yi nag lim na ko mooy que yaa ko amoon nañ yaakaar ni ko Sonko buñ ko jàppee réew mi tàkk jàpp nañ Sonko yóbbu ko ba Sébikotane pono takkul fetel jugul dara amut. coowal troisième mandat mujjul am sonk du bokk bu bokkul ci élection yi élection yi du am sonk bokkul te ñu ngi waaj a dem élection kon yaakaar naa ni leer na sénégalais yi sénégalais yi nañoo xoolaat suñu bopp nañu xoolaat suñu bopp te xool ku ñuy jox suñu réew mii ndax nag nee naa leen li ci maire du ci président président day am pouvoir di nommer di dindi di tek di dindi di joxe ordre ñuy exécuter donc koku dañ ko wara xol xool ay mbiram bu baax baax te bañu fal ci jëm nañu baña fal ci mer nañu baña fal ci fajum mer aussi nañu xool koo xamante ne xiiful maru raflewul ñu jox ko suñu réew mii mu tal ñu kookoo ñu mën a tal kookoo mën a tal Sénégal kookoo mën a lijjanti nan la ñuy demee ci kanam donc nañu xoolaat suñu bopp. Yo ligue de vie, voile, le tigre,